ba tiital xol yu bari ba am ñoo xam ne ñuy rocc ko nañu bañ a dem te seen ngëm kat dara ci sàkk amu ci bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne nañu waajal xare bi sidna abubakar radiyallahu anhu ba mu indee ni mu am teg ko su kanam yonente bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo gis mu bari mu ne ko loo fa bàyyi mu ne ko yàlla ak yonente bi laa fa bàyyi xam ne kon bàyyi fa dara li ma amoon lépp la fab def ko ci yoonu yàlla ngir wóolu bi ñu wóolu ne yàlla mooy dundal mooy rey te mooy wërsëgal te lépp lu mu def daañu ko ko fay ëllëg te ñu ngi toll ci bu boo xam ne ak yonent bi ak jullit ñi toll ci diggante boo xam ne la nañu ci lañ gën a laa ndimbal ci lañ gën a aajowoo ndimbal Abu Bakar Siddiq bi mu duggee këram lu ñu ko bëgg a bàyyi rek seet ne lii bu ko jëriñoo tey ci adduna bu ko dawaloon ci yoonu yàlla ci bis bii tey bu ëllëgee dana ko jëriñ bu ëpp loola le mu fab loola bu ko sa néega bàyyi ba bale këram ba mu set lépp mu def ko ci yoonu yàlla sidna omar radiallahu anhu nit ku yew la ku yàlla sopp la woon dëgg la sopp muhammad sallallahu alayhi wa sallam te gëm diine nit ku àggoon ci yàqin la ci yóolute yàlla jox daf ko war a ndax yàlla soxla na tey yonent bi soxla te dañoo war a waajal lënd mu xaaj ko ci digg ba bu mu indee alalam lu muy def ci ñuy waajal xare bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam a ko loo fa bàyyi mu ne lu mel nii seen daraja ci yàlla mu ngi demee ñu seen jëf ñu demee moom Abu ak ak Umar ñooñu yëgatuñu woon xiif yëgatuñu mar seetatuñu ëllëg lan la ñuy denc ngir bu ëllëgee buñ soxla nangam mën ko jëriño ndax iman manam jëm yalla dafa lek seen xol ba mu jeex tak ba seen bàyyeeti leen bàyyeelati leen xalaat bo xamne ne ko xalaat pour ëllëg naka noonu ñu bari ci sahaba yi meloon nañu noonu bu ñu seetee jaar jaar yi ñu jaar ak tollu way yi tollu nga xamne cëpp ko addu àggul ci yàqu boo fa tollo dara mëna xew ci yow lo xamne ne dañu mëna sét a mais ci kat jamono ñuy xare ji badar ñetti téeméeri nit rek dem di daje ji junni nit ñoo xam ne waajal nañu xare ba nañ ko war a waajale te li leen yëkkati du dara lu dul raafal leen ñoom ñooñu ba kenn bañ a des ci ñoom ñoom ñu ñett téeméer nga xam ne kon kenn ku ci nekk ñett nit nga war a xeexal yoonu yàlla ak jaay seen bopp jaay seen adduna jënde ko alaxira tax leen ci loolu lépp nga xam ne kenn ku ci dee shahid la nga xam ne dara ji shahid ñoom ñëpp dañ koy xemmem kenn ku ci nekk moom nga wut shahid mooy lan shahid mooy nit koo xam ne dafa dem topp ci yonent bi di xare ngir yëkkati baatu yàlla ba ñu rey ko kooku dañ ne amul laaj ko bàmmeel te dara jëm yomal xiyaam fa kanam yàlla dara réeréer amul lu ñuy seetati ci lu bon ndax nit ki ba nga xamee ne génn na këram te fas yéenee dee ngir yàlla jaay na léppam fasatu yéenee dellu si ñàkk a mu fas yéenee nga xam ne dara ci adduna li nit di bëgg defatul ci amatul dara lu ñuy fàttaliku di ko bëgg wala mu di leen tax a dellu wala di ko xalaat noonu seen xol sete ci adduna noonu lañ sete ci lépp bàkkaar ba xam ne daanaka aajowuñu ku ku leen dimbale wala ku leen sang wala ku leen dara nga xam ne daraja jooju ñu am te xam ne sooxi boobu moo leen koy moo leen koy jox kenn ku ci nekk yaa ngi ñaan sa borom boo demee am ko nga xam ne ñu gën a bari ci ñoom dañoo fasanteeg yàlla suñu borom ne ko jaay nañ leen seen dund ba fu ñu mën a yem ba nga xam ne ñu yàgg-yàgg dootuñu bu ñu dellu seetee yàllaa leen génnee fi waaye bi béréb boo xam ne bii ragal nañu ne ku fa àgg da dee ñu di ko teet ngir bañ a dee Abubakar nag ëpp na leen ci loolu ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne law wuzina imaanu abi bakrin bi imaani ahli lardi la rajaahum bu fekkonte ne ngëmub abou bakar dañ ko teg ci plateau balance teg ngëmub waa